Kaolack maa ngi leen di nuyu Kaolack sama dëkk Kaolack sama cosaan Kaolack nag ku fi dugg sa xel ak sa xalaat dina dem ci famille religieuse yu tedd yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii te sunu ay maam sunu ay kilifa sancoon ko Léona Niassène ak Medina Baye Cheikh Islam fala fanaan yeewu dem jaar ji euh, Baye Niass Cheikh al Islam pour yàlla taas ñu ci barkeem li nga xam ne moom la ñu bëgg yàlla yombalal ñu ko ci barke Cheikh al Islam Baye Niass. ñun on a un grand projet de modernisation des marchés du Sénégal te loolu bëgg nañ ko commencer fii ci la defar marché bu bees tàq boo xam ni yéen yéenay def conception bi yéen yéenay xool seen ay cantine ak lépp lu ngeen soxla ci marché bi incha allah ñu taxaw ci loolu bétoir ku ko xam xam ne am na problème mu assainissement ku dem saam xam ne am na problème mu assainissement ku dem ngaan xam ne am na problème mu assainissement ku dem Ndorong xam ne am na ay problème mu assainissement ak yeneen quartier bu ma ñëwee o pouvoir dinaa def cent milliards de francs CFA pour cinq ans pour ñu régler définitivement le problème de l'assainissement et des inondations de la ville de Kaolack leneen li mooy Kaolack c'est une ville carrefour Kaolack mooy dëkk bi nga xam ne boo fi taxawee di nga dem à l'est di dem au sud di dem au nord di nga dem à l'ouest Kaolack mérité na leneen lu dul li nga xam ne moom moo fi am ñu bëgg la modernisation de la ville de Kaolack dinaa leen won ci télévision li nga xam ni moom la nar pour Médina Baye ci sunu projet bi nga xam ne am nañ ko port de Kaolack waroon na mën a nekk poor bi nga xam ne ci la ñuy jëlee marchandises yi fii ci Kaolack di ko yóbbu a l'intérieur du pays wala boog di ko yóbbu ay Mali ay Mauritanie ma jàpp ne pont wu Foundiougne bi tëj portu Kaolack ba kenn dootu ko ubbi lu tax bateau yu mag yi nga xam ne mënoon nañu ñëw port de Kaolack mënatuñu ñëw puisque mënatuñu jaar ci suufu pont wu Foundiougne bi moo taxoon ñoom ñu bëgg a def pont wu ndaxo nga te pont wu nga mënul régler problème yi nga xam ne moom la intérieur bi soxla donc muy ay choix politique infrastructurel yu désastreuse donc loolu ñun bu ñu ñëwee dinañu xool nan la ñuy remédier ci yooyu ba Kaolack nekkaat carrefour bi nga xam ne moom lañ bëgg mu nekk